Kasigi, would you Kasigi?

lu ma benn benn benn yoon su ma waree jóg dem daayira su munul ñëw tamit ah, mu defar eh, sëriñam jox ma yóbbaale daayira su ma su ma su ma su ma su ma waree jàng samay xasaay mhm. mu ne xale yi toog leen ndeysaan waaw seen papa day jàng xasaay nit ku baax loolu lay def waaw baax loolu lay def ñaanal nit ñi mhm. almaa sax dafa naan ma ñaanal leen almaa yi sax dafa nga gis ni dafa naan ma ñaanal leen gis naa ko gis nag moom nag moom nag gis nga sama jabar xarit bu ko ñëwoon bés. Hmm. boo leen gisee benn dañoo xaw nuroo man daal jaaxal na ma nuroo nañ ba jaaxal na. Hmm. waaw nuroo nañ ba hmm, nga xam ku nuroog moom ku nuroog soxna aji. waaw. maa de. yaa ngi zoo. yaa nga jógee yow ma dem ma jaar si afro so suma affaire. kii moom maanaam euh, am na am na ay doomu aadama yoo xam ne boo leen gisee. dañuy nuroo. waaw ah, waaye kooku kooku mbirum yàlla la kooku mbirum suñu borom la waaw moom nu mu tudd yow ki nga xam ki nga ki nga xam ne nu mu tudd. nu mu tudd Safi ah Safi hmm, Safi nan Safi. Safi waaw suma jëkkër dafa ñëw si man. Mm-hmm. mu wax ma nag lu doy waar. mu ne ma moom taay dafa demoon dayre. Mm-hmm. tase sëñ Maxtaar. waaw xam naa su ma su ma ko gisee rek laaj ko mun naam mun naam tam mun naam tamit mun naam tamit xëy na xëy na ñu bokk dara ci ay maam waaw kenn xamul ah ah, ah sàll euh, pël yi pël xam ma xaw ma xaal pulaar waaw bëgg ceeb waaw waaw dañoo mën a nuroo wallaay wallaay waaw dañoo mën a nuroo yow xam nga yow ndaween nga ndaween nga ak leen ñu xam nga mooy loolu man damay ree moo tax seen keroog sax seen jotaay sax maa ngi leen di seetaan seen jotaay keroog ah. maa ngi ree naan ay màgget ne moom kañ la xam soxla si ma ne kala ngoog sàll ndaw bu nit ñi di wax ma ne leen sàll ndaw sàll ndaw sàll ndaw waaw ñoom ñoom ñoom foo leen fekk nii eh? lañuy nii la ñuy defal mu ngi mel ni man rek saar ak caam dañoo baax ah bu ah, ngi noonu rek. ay ay ay kal moo tax kal lu lu am solo la. dafa baax waa day tax nit ñi maanaam di mën a kaf gi mën a ree xam nga. aji mee na mi maa wax noonu. aji bi ngaa wax noonu maa moo ma ci dabee na biir mas ma si xeloon. foofu nga jënd fan yàlla. la ca biir na hmm. ñaan naa la du tey lañ koo wax. ñii lañ ma def. waaye jàng li ma ànd ak yow yow mosuloo ngaa lii. ni mu demee la ndegem bi yaa ngi ma wane yaa ngi ci yooni bel joom nii. waaw waaw waaw waaw. nañ dem ba yóbbu la. balaa la fi sa train gi di bàyyi. man tey nag am naa lu ma xaw a lii de suma yaram ba soo ma xoolee suma kanam bi nga xam ne baaxul. man seetlu naa waaw jërëjëf kon léegi man maa dem maa ñëwaat. fekk na kër. waaw baax ñu wax ni du ma la bàyyee nii de. am nga time sa du ma la bàyyee nii de. man yow doy bàyyi xam naa ko ba rek la waaw. tàmbalee ma gis génn am yu mel nii. ñoom suñ amuteeloo bu nekk la ñoo indi. moom pour génnee ko problème mm. la. ah ak mm. ah, léegi di ànd ak yow comme weekend nii. ngeen génn doxantu jeeg seen doom bi. mu ne ah, daf dee sonn na liggéey bi xam naa. ah xanaa bi mm. understand nag daf dee fatigué. wala dégg nga moom time bu baax sax si waaye léegi. waaye understand naa ko nag. Ah, ok fii ngeen déedéet Gambia. déedéet kay. ah Gambia lañ dajee sëy. Ah. Mm, waaye bi ma fee ñëw nag maa ngi ëmba yaaxa di. ah moo la fi indi. déedéet maa ko fi indi.

yëf yi jigéen moom sëy moom sak la rek mm. sa jëkkër ngaa te nekk fii mu nekk fële man dama gisoon ne dafa métti sëyi distan dafa métti waaw moo tax ma ne xaaral bi ma ñëwee loolu laa njëkk a xeex pour man famille moom ñun ñëpp a ko bokka waaw dëgg la waaye comme ñu bari duñ te euh, comme jigéen yu bari du ñuy def loolu noonu because of xam nga dañ dee xalaat disappointment meeg yooyu noonu xam nga so am na ñoo xam ne taraanga jegu leen waaye jaxa naam dafa am fan yëpp dafa am lu ma la bëgg a laaj waaye dama dee fàtte mm-hmm. nga xam liggéey bi bopp baa nga fees <laughs> kii nii bin lu mbokk am Mohamed ban bi yaa ngi fàttaliku foos day ñu mit yaa ngi taxawoon a benn jànq si mbeeda bi di ah, <laughs> yow bàyyi ma kooku. waaw yàlla tere kooku sa Adama Awala Gija boo kaa suma jëkkër. Hmm. ah. nga xam ne kar na ma si mbedd kar ma fu ne. kay su bokkoon na suma jëkkër ni ko noonu loolu waxatuñ ko. kooku tam moom kooku daal xaw ko sax. jigéen bi jël ma anti ma man daal dama foog ne looloo tax mu bañ ma nii. waaye man bindee suma xel tey la si moom. mu oh, yow kooku ku dem sa waay la jël <laughs> dafa teeree reer yi xale boobu. ah non xale boobu xaw ma fu jógee. suma waay waaye seetlu naa loo xam ne bu ngeen bëgg jël koo xam ne suma waay xarit la. jóg ci gaaw. dama ko gis sa Mohamed. ban Mohamed. sa Mohamed. suma Mouhamed waaw. <laughs> jànkoo ma leneen waaye kenn du ko ñoom gis nii suma ñaari. suma Mouhamed man waaw waaw. non non non te situation bi leen gis loolu nekkuti fi xarit. su xarit xaritam. situation bi daal ñoom ñaar seen diggante ragal naa am na luy dox suma Mouhamed. Mm-hmm. ak bin. Mm-hmm. Ah, kon moo tax bin di kar si mbedd bi. loolu laa waaye nag naa la wax leena xam ku tudda bin la bin bin bëgguma sax déglu wax ah foofu nga toog wax jërëjëf bëgguma déglu wax man ma am ku ma ataar non dégg déglu ma wax ma dina ko wax loolu na dàq maanaam yow wax fi nga toll waaw léegi la bàyyi lii dama la ko wax parce que suma xarit nga xam nga dama la jàppee comme suma doomi ndey. oh my soo su ma gisee luy jubli si yow wala yaaxal foog naa daay wax la ko. nekkut ne dama bëgg a jaxase sa diggante sa jëkkër oo xaga wax yu sew indi wax yu sew sa diggante sa jëkkër du loolu dama la bëgg a waxal rek pour nga bàyyi sa xel. nga bàyyi sa bu baax a baax a baax pour ëllëg si biir. foo leen gis la beeta. foo leen gis rek. ñuy def la man de dama leen xomba si benn lifin si benn café ñu ngi toog. toog rek. waaye nuñ toogee ah. toogi jëkkër a jabar wala góor a jigéen nii. <laughs> after that xam nga mënuma la explain everything to detail xam so bëgguma yàq sa xel waaye daal ni ma leen gisee ñu toog. loolu daal nekkut ko am suma Mouhamed. Mhm. Ah, kon lii moo tax bindi ma kar kon moo tax binne ma tànk si suuf jaan si suuf dox dajee. waaw mus na ma wax. Mhm. kon lii la ma bindi wax. ngóog. Mhm. fekk bu ngeen karta fu mu nekk nii xam nga man leen laa doon taw. mooy. dama ko doon avoid nag parce que dama xam ne man maa bind duñ maas duñ maa pandoo. ndig man jigéen buy sëy la ma am suma njaboot mm-hmm. bugguma taxawaalu si mbedd di xuloo di ñuy ma àtteeg moom moo tax saa ma kalaan sax dama daan am limite boo xam ne dama ko wax rek ne duma sa morom nangam sangam ma em ci waaye léegi comme que bin lii laa def dafaa ñëw dugg suma kër mm-hmm. ay ca waaye ndaa la ñaan leena nag bu ko chance bu ko may chance waxuma la wax sa jikkat loo xam ne dafa tax mu meer giina dem fekki benn waxuma la nga def loolu waaye yow comme loolu sax xam naa ne yow di ko def aga di ko di nga wax sa jëkkër euh, naka la tuddaati tey talaanga nga ak respect waxala sa jëkkër si maanaam boo xam ne du tax mu gën laa mere xam nga génn dem fekki bin parce que soo defee loolu noonu bin dafa am dam si yow de xam nga bu ko woon ak yi fi xam nga ñàkk ak yooyu noonu boo defee loolu bin dafa am dam si yow waxala si moom waxala moom si njekk ak taraanga xam nga te waxa moom si tuun boo xam ne du tax mu kii génn dem fekki bin nee man aw ma Mohamed affaire waaw parce soo defee loolu kar bi ma bindi kar mooy dog ah baax man bañu ma bin ngoroo Mohamed de waaye na ma bàyyi bu ma kar waaw loolu moom loolu yëfi disrespect waaw man yëguma tinuma bin daal daf ne lii def pour jël suma fit bu ko defee mu mun a dugg si Mohamed continuer ambiance bi continuer Mouhamed Jesu xamul li tax Mouhamed nekk fii tey. mënu ko jërëjëf parce man xam naa ne yow sëykat nga am nga jom am nga la am nga fayda. jàng doo ko may chance. bul woori loolu man man loolu dinaa ko seere. seere ko parce que li tax mooy. man musuma xam ne lii mooy wax ci moo tax samay doon nooyal. Hmm. comme que loolu la. loolu man Poul la bin oo na Poul si wayum wayalam soow. góor yi tey ndeysaan waaye jarut a wax sax parce que su ma waxee sax yàq suma tiyaab. waaw yow li nga fi wax sax moo tam man ma am fit wax la ko because of sa diggante moom xam nga taraanga gi ñu yëpp. ba ñu ma Mouhamed am ñeneenti jabar jullit la. waaw am na raay daaf na pour am ñeneenti jabar. waaye nag bu ma bu ut xale boo xam ne daf maa kar yoon wala mu waxal ko. loolu du respect ko ah. kon mu Mouhamed moo ko won ne kii mooy suma jabar moo tax bin di ma kar si yoon kon bin. bu ma ko bileemee sa tuuti la. waaw waaw Mouhamed mooy ndeyu mbila bi moom moom dina àgg si kër gi fekk ko. waa naka mu maa ngi lay xaaral boobu ba léegi euh, waa xaaral tuuti sax xaaral tuuti may ma di dama gis sama benn mbokku taalibe euh, Maguette xaaral tuuti moo xam moom ba pare waaw baax na. kii kii kan la kii du màgget. waaw waaye ndaw ndaw ndaw ndaw. ñu ngi ziar maa ngi lay la ziar. gëj a gisee. waaw gëj nañoo ah yow lii lii lii yéeme na. yow yow ci mbedd mi la ñuy daje. wallaay wallaay xam nga jot moo warul am. dëgg la dëgg la gëj nañoo gisee depuis depuis balaa ñoo dem màggal. waaw yaa ngi fàttaliku. waaw mbaa mujj nga màggal yi. waaw mujjoon naa màggal. mbaa lépp taw fii. waaw alhamdulilah waaye nañu sant yàlla. mbaa yow demoon nga. Oh, sant mujj naa bu baax a baax a baax a baax dem nañu màggal yi ñaanal nañ ñëpp macha allah. amiin ñaan yàlla daal yàlla faj aajo yi ah yokk doole xéwal gi nit ñi gisante woon balaa ñoo dem ah ñu gisante ko waa déwén ah ñun ñëpp yokk xéwal yi yokk jàmm yokk yokk sutur mais depuis mais nag yow depuis boobu ba léegi nag mhm. bi ñu mujjee gisante ba léegi mhm. maa ngi lay bëgg woo ndax yaa ma bu may fàttaliku mhm. doon nañu waxtaan ba tudd ci safi da nga ne ma sax eh, dafa dafa nuróog moom yow xam nga ku nuróog moom ah safi moomu nag ah kooku sama rakk soxna la. nuroo boobu ma ci waxoon. bi hmm. nga waxee maa ngi ci bàyyi xel. waaye bi ma demee nag ba sox ba ba ma toog ba waxtaan ak soxna si. Hmm. am na benn mbir moo xamante ne xew na sama sama sama sama sama kër comme que yow taalibe nga. Hmm. taalibe sëñ Touba nga jóg ak sëñ Touba. waaw euh, te adduna. nit moom boo xamul nit rek. da ngay def ndànk maadu teey. te mbarum mbirum njaboot. du mbir moo xam ne dañ ko war a wax fépp. waaye am naa sama kër as gàllankoor bi tuuti boo xamante ne mbirum sama soxna la ak rakkam mooy safi moomu ndax safi moomu lu yàgg ñu koy wër xamuñu fu mu ne te yow nee nga ma ne waaw xam nga ku nuroog sama soxna moom waaw waaw waaw bu ah. ñëwoon waaw sama soxna waaw kooku nag sama soxna la mm-hmm. kooku kooku aji la am na rakk nag boo xam ne ñoom ñaar ay séex lañ dëgg la dëgg la dañoo nuróo léegi nag nuróowaay boobu nag hmm. te safi moom hmm. moom la ñuy seet ma bëggoon nag ah. nga taxawul ma ci bu baax comme que xam na sa soxna. Ah. te sa soxna xam nga ko xam na ko. ma bëggoon nga taxawul ma ci bu baax. ci diggante taalibe ba fexe ba mm-hmm. ba ba ñu xam fu mu ne. Mm-hmm. bu ko defee yàlla fay la yonent fay la sëñ Tuubaa fay la. loolu moom dinañ si ma. waaw kooku kooku maa ngi la koy dénk. ndax ndax ndax am ndax yitteel nañu lool lool. yitteel nañu lool waaw naka naka sedd bi nag. waaye sedd na lool waaye gis nga fi waaw war di sant yàlla. ndax maam tàngaay day am. sedd am waaw ñëw fii ñu ngi jàmm sedd mu tan ñu sant yàlla lu ñëw rek ñu sant lu ñëw ñu sant suñu borom li anglais no condition is permanent waaw mais yow lan yow yow yow lu la indi fii sax tey sax tey man euh, suma liggéey kaay ñoo fi indi nag benn montage bi ñuy def fii hmm. waaw macha allah mbaa mbaa di fi yàgg lool Euh, xam naa nag duñ fi yàgg waaye dañuy dem di ñëw daal waaw di nga di nga di nga jaar kër ga quand même waaw dinaa fa jaar la séntu waaw def leen di di maanaam waaw naka njaboot gi a ngi naka sëñ bi ñu ngi lay laaj ñoom ñëpp eh, taay Sénégal sedd na waaw seddoon na tuuti nag waaye fan yi woote naa fa ñu ne mi ngi wàññeeku daal ñoom nañu nañu ñoom nañu sant yàlla sedd gi nekk fii sedd gi nekk fii waaw ah. bu ñu amoon li ñu am ah. ñu baaxut suñu bor bu ñu xamoon nag suñu bor wax ci jàmbat. sëñ Saliou nee na jàmbat ak yoreel. Hmm. dellu ginnaaw ah moo tax moo tax daal nañu sant yàlla. ku sant daal ñu lay dolli. waaw waaw loolu la yàlla wax la in zakartum la azidannakum. macha allah sant ma leen di dolli. ak sa ak sa ak sa waaw su ma waa ji kontaan naa. kon di ñaan yàlla daal. amiin amiin amiin jërëjëf. incha allah waaw baax na waaw mucc xéewal rek mucc xéewal jërëjëf jërëjëf. ndeke nii nga nii nga mën a fili. non sonn naa dama sonn. ba jamono mënuma firi dama man dama dee try rek xam nga mënuma. dafa métti nag ndax xam naa li ndéegi yoo tiree moo tax ba soo dee daw every time ñu la jox. waaw dëgg la wante xam nga ah ku may àndal yow doo dee am time every time xam nga ak buntu rek nañoo mën a dem. dëgg la waaye waaye soo bëggee next weekend mën nañoo ñëwaat man moom fii rek laa dee ñëw. non next weekend loolu du mën a ne. lu next weekend. next weekend suma ganam nii dafa ñëw ñoo bokkoon classe time bu ñu doon def bala ñoo start university ñoo bokkoon classe xam nga suñu school ñoo daan ànd suma best friend la woon après gars yi. ñu toxu London. ah ok moom foofu la mu demee university man ma demee fii nii xam moom dafa dellusiwaat. ok te ma bëggoon concert si daal si bi. weekend da nga bëgg a daw rek. non dama ko seeti xam nga dafa suma waay la woon suma best friend la woon so foog ma dem seeti ko. mu ngi wane que di first person ku ko dem seeti. ok ok moom tam def na university in England. waaw wante moom foog na xamaa nga ma dem ndax pare na ndax pare nga parce que moom ba sam semestre bi moo wawoon noonu gën a gudd suma ko. anglais seen semestre. waaw dina la. ba baax na kon yow soo amaatee time rek mën nañu ñëw ñëwaat loolu du am problème nañ ñëwaat ok loolu amul problème su ko defee yow so ok baax na kon ah, kon am na ñoo dem kër léegi non mën nañoo dem man pare naa kañ tey tey du ma defati dara waaw léegi sonata ah <laughs> yow laa war a wax sax sonata waaye baax na ci nga yëgal yaram bi tuuti ah mbaa jàmm xanaa kay bala nga wax nit mbaa jàmm nuyu ko jàng man su ma ko du jàmmal a raac toog gis nga tey jii boo gisee may laa kool booba ba tey pour dajeek yow jàmmaa tax ma oola ndax dama xam ne li ñoo def nii dara jaru ko magum jëma nga ma doon magum jëma war nañoo paase fii tase si mbeeda kenn ku nekk di jaay sa bopp boo morom ba nga jaru ko fi jànga man tey nag dama génnoon rek pour waxtaan ak yow su fekkee ne sa diggante ak Muhammad déggu na man dama préfère bala ngaa toog sa biir kër ngeen a sàccoo di def loo xam ne yàlla bugg ko suñ diine tere nañu ko. mbëri waxal ci njëkk ak teraanga bul ma xas su ma dugga ci Mouhamed ñëw sëy si mooy sa génn yow jarul nga ma oo ci boor boobu noonu ndax boo ma si ooyee daan Mouhamed fii laa ko def di ko def nii maa ko man daan lu ma neex lay def bu dee loolu rek la waxoon naa la ko soo ñëwee si Fair Play ma bàyyi laa Mouhamed ndanka nag te di ko decide sax nag soo ñëwee nag ci wow bu da jaay naxarite rek ma tegoon da nga waxoon ne da dem ci yoon danga ma doon jaay ponk ak pank ak mbonk jaayuma la pank yow booy ngoroo Mouhamed muy doon suma jëkkër man lu see suma yoon ah, ba boo ma gisee si mbedd bi di ma kar sa jëkkër nekkoon sa yow man yëguma ma ne sax sa jëkkër la man foog ne doon xale jamono wala nekk si sa jamono moo waral ngay maa toroxal nii dina xaral su ma néegi sëy nañ dem di ko gis Yaa ko tal. Kii yaa ko tal happiness. Do kasiki mo.